jërë ngeen jëf mbokki internet yi xelam demoon na bay neex far bu mu ko tagg loolee ba moytul moo nar a yoot li nga xam ne moom moo di président Ousmane Sonko ndaxte nag jamono ci ak bokkam si élection yi tàq na suuf lool ak ñàkkam see bokk moo gën a jege ak bokkam si moom kookee di Ousmane Sonko ginnaaw Cour suprême rek dogal ba xamante ne na rek ay awakam doon nañ ko sàkku rek ñu a atte te diglu rek li nga di constitutionnel Cour suprême daal di dàq loole rek daal di def li nga di ab liggéeyam ba tax na rek kookee di Ousmane Sonko ndax jamono ji dina bokk si élection yi loolee nag yaakaar naa dootul mën a nekk walanti bu dee man nekketul luy bett ñëpp lay doon wala surprise bu mag a mag lay doon si Pastef ay patriotes yi patriotes yi mën nañ na seen yaakaar ma ngay commencé tas ña ngay commencé ñàkk yaakaar si ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ginnaaw rek def nañ yëpp pexe rek pour rek mu bokk si élection yi ñu dëgmal waaye nag Cour suprême ba tey rek nanguwul loolu lu si mën a amit ñu xaar ndax dafay kase rek nga xamante ne si ne foofee mu leen attoo si tribunal bu Ndakaar conseil constitutionnel ak lu mën a am la 5 bi dina càmbar mbiram Ousmane Sonko ab dossier am lu jëm si wàllu parrainage am ndax ndax tey kay validé wala du ko validé ak lu si mën a am tey jii danañ xam foofee sa conseil constitutionnel ñeel mbirum Ousmane Sonko ko ginnaaw rek ah, démb parce que doon àtte foofee sa cour suprême si diggante moom ak Mame Mbaye Niang xel yu bëree bëri jàpp ne soo moytuwulee Ousmane Sonko di dem si élection yi.